société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen di A Les Échos mbooleem yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu xëyantoo xëy duñu xibaar naan ñu benn bokk yaakaar tey duñu yeewoo duñu xëyee lu neex ci réew mi ginnaaw nag victoire bu rëy bi nga xam ne coalition Yewwi Askan Wi tar nañu koy am ci élection locale yi nga xam ne doon nañu ko amal niki démb ci biir réew mi journal bi di Rewmi Quotidien quotidien mu xëy di ñu xibaar nan ñu élection locale yi yeeyu askan wi jamono ji def na lu dara jëro la xam ne ñooy waa benn bokk yaakaar razia la la Ousmane Sonko def sa diwaanu Ziguinchor Barthélémy Dias jamono ji mooy roi bu Ndakaaru yéen a kaay gi nga xam ne mooy exclusif xëy di ñu xibaar nan ñu élection locale yi wane na boppam ki nga xam ne mooy Barthélémy Dias daan nay gagné li nga xam ne mooy mairie bu Ndakaaru daan nay gagné Abdoulaye Diouf Sarr journal bi nee na yeeyu askan wi dafa gagné Abdoulaye Diouf Sarr ci di ville bu Ndakaaru gagné ko ba sa ab commune am yéen a kaay gi ne ne Ousmane ko dafa jaar ci kaw gaay yi di jàll fi nga xam ne mooy sa diwaanu Ziguinchor yéenekaay gi nga xam ne mooy La Tribune nee bu ñu waxante dëgg razzia dëggantaan la coalition Yewwi Askan Wi def ci élection locale yi journal bi nee fi nga xam ne mooy Ndakaaru ak ca diwaanu Ziguinchor ak ca diwaanu Guédiawaye foofee fépp Yewwi Askan Wi moo fa jaara moo ko daal di nooyel ba mu nooy nepp journal bi nee na élection yi bëri na ay mbetteel yoo xam ne daan na ci am yéenekaay xam ne mooy Grand Place xëy duñu xibaar naan benn bokk yaakaar bu njiitu réew mi di président Macky Sall jamono ji coow

doon amal ñaar fukki fana ñett ci weeru janvier jamono ji na grande tendance yi ci élection boo xam ne maanaam bu ànd akuk dal journal bi de la Soleil nee na Ziguinchor ak Dakar jamono ji ma ngi ci loxol Yewwi Askan Wi benn Bokk Yaakaar daat nañuy nangu ne ñàkk nañu Dakar ñàkk nañu fi nga xam ne mooy Ziguinchor journal bi nee na Kaolack homme d'affaires bi di Serigne Mboup jamono ji gañe na bite ak Rahma fi nga xam ne moomay ca diwaanu Kaolack yéenekaay gi nee na bu dee Saint-Louis foofe nag Mansour Faye moo fa daal di ngarale yéenekaay gi xëy dañu xibaar naan ñu ca diwaanu Louga ak Linguère ak Kaffrine foofe nag Benno Bokk Yaakaar moo ko gagné yéen a kaay gi nee na ministre de l'intérieur di Félix Antoine Diome daat nay organiser élection yoo xam ne daat nay ànd akuk daal yéen a kaay gii di l'info nee daat nay ñàkk li nga xam ne mooy capital bi yéen a kaay gii di libération bu ñu waxante dëgg naufrage moo am ci benn Bokk Yaakaar dañu leen a jaar ci seen kaw jàll Abdoulaye Diouf Sarr gagné nañu ko Ndakaaru gagné waxle ko ba sa diwaanu Yoff yéen a kaay gi di source na nag bu baaxul ci ki nga xam ne mooy Macky Sall bu dee nag sa diwaanu Jolof foofe nag Samba Ndiobène Ka maanaam moo fa yéenekaay gi xëy dañu xibaar na ñu lii nag déerul dëggantaan la bu na coalition Benno Bokk Yaakaar yéenekaay gi de laas nee na nag ngelaw lu bees luy upp lu jugee ci yeewi askan wi moo am ci réew mi maanaam yeewi askan wi fépp foo xamante ni rek jaar na fa dafa dóor Benno Bokk Yaakaar ba mu nooy nepp te yeneen coalition yi nag li jaaxal gaa mooy kenn déggu leen yéenekaay gi di évidence xëy du dañu xibaar na ñu lii nag alerte bu mag la ci lu jëm ci wàllum ñetteelu mandat bi nga xam ne njiitu réew di président Macky Sall ma ngi ko doon wax yéenekaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu yeewi askan askan wi jamono ji na yàq mburu mi ak soowa journal bi nee na sëriñ Buub dafa daal raafale fi nga xam ne mooy ca diwaanu Kaolack réew mi na Samba Ka gagné na fi nga xam ne mooy daara fépp Samba Ndiobène Ka moo ko gagné bii nga xam ne mooy réew mi quotidien nee na Seydina Issa Lay Samb jamono ji jël na Abdoulaye Diouf Sarr daal di koy génn Yoofa élection yi am na ñaari nit ñoo xam ne daal nañ leen di rey yéen a kaay gi di 24 na lii nag avertissement la bu mag a mag ci ki nga xam ne mooy Macky Sall Barthélémy Dias dafa humilier Abdoulaye Baldé ak waa Bokk Yaakaar Serigne Mboup jamono ji foor na lool fi nga xam ne mooy diwaanu Kaolack yéenekaay gi di Direct News xëy di ñu xibaar naan ñu lii nag ab déferlante bu yeewu askan wi la yeewu askan wi jamono ji maanaam ñooy buum di buumi ci grande ville yëpp yeewu askan wi moo fa gagné journal bii di L'Info moo xëy di ñu ko gi di Bës Bi nee na yi nga xam ne moom la ñu amal baaxul ci waa Benno Bokk Yaakaar journal bi di Source A na ko waxal wax ji jamono ji kay mën nañoo wax ne yeewu askan wi maanaam moo fi nekk yéenekaay gi nee na Ousmane Sonko daan nay def razzia ca diwaanu Ziguinchor Omar Gueye dañu koo daal di gagné sa Sangalkam journal bi di Vox Populi nee na un autre vent souffle la déroute capitale bu Benno Bokk Yaakaar ci Dakar ci Guédiawaye ci Ziguinchor ak ci Kaolack ak sa diwaanu Thiès docteur Babacar Diop bu yeewu askan wi moom nag Talla Sylla maire sortant bi daan na koy félicité yéen kaay gi ne na coalition yeewu askan wi ca diwaanu département bu Mbacké moo fa def lu dara rawatina fi nga xam ne mooy Touba journal bi na bulletin blanc bi tamit mën nañu see li nga xam ne mooy benn bii am ci Touba yéen kaay gi de enquête xëy di ñu xibaar naan ñu résultat élection locale yi nga xam ne ni ki démb la woon le gran séisme le grand séisme noonu la ko journal bi tuddee surnal bi di réew mi quotidien nañu lobby LGBT yi baadu état bu Sénégal daf cee am ab agenda caché yéen kaay gi di réew mi quotidien yokk si nekk ingénieur boo xam ne dafa détourné lu toll ci treize millions benn xaritama yéen kaay gi de estat xëy di ñu xibaar naan ñu CAN 2022 Burkina Faso ak Tunisie ñoom dem nañ sa quart de finale ya bi nee na Guinée ak Gambie tey jii la yéen gi xëy di ñu